ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kulub promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu soit nañ ci digg géew bi Kaapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li wër waaye Kaapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu soit nañu wurewa dem na kang waxu dem na ndañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf Serigne Fallou li Nicolas jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku suufle ba dal na Ama ak Modou ñoom ñaar ñu ngi leew too ñu ngi leew too laa ilaha illallah ay waay xool leen stade bi Modou Lo Ama Baldé ñu ngi xeex ñu ngi xeex aja at bi bàggee wax ñoom wala mu ngi ci nekk ndax niin ngam niinu ndax mbër dafa bay caay caay ama bu malika caaju piyool ñaar yi xaw a neexoo xaw a nduroo ngemb jaay léegi mu lamb ama bu malika caatu piyool ama bu malika ak caatu piyool Thiatou Puyol Parcelles la dëkk wala Grand Médine benn la ma bu Malika Malika tur ba wuyoo na ko bu Malika daw na wër géew gi wala Thiatou Puyol yoo xaw a ñoom ñaar xale yi neexoo nañ de Ama Malika Ama bu Malika Caatu Puyol aduna sifla na Balla Gaye ci stade bi di yëngal fu mu ne nii Ama bu Malika Caatu Piol Caatu Piol moo ñu woon ginnaaw bu Malika la jàkkaar lool na ba neex ko mu njool am Caatu Piol Ama bu Malika Caatu Piol da ngay leewtoo Mansour mañ pero sama lonko Ama bu Malika Caatu Puyol dagg na lew tooba moom Caatu Puyol deme latéral daal di ñëwaat Ama Malika Caatu Puyol Ama bu Malika Caatu Puyol ña ngi demee wet ñoom ñaar dagg lew tooba Ama Malika bu Malika Thiatou Piyol ña ngay bu biir faw mu dag xaalis Mansour ami sif la waat na ama bu malika caatu piyool ña ngay ca war saaku ya saaku ya fekk wut kenn fo dem yaa ko fekki ma malika caatu piyool ma malika caatu piyool ñu demul ama malika caatu piyool aja ba léegi xale yaa ngi xala war am xalaat Mansour Fall mépp na bëgg a dem waaye taxawaat na moom jaadu piyool bi ma Malika def arrière ñaari ba taxawaat joxaas na léegi moom jaadu piyool waaw ah, maa jaadu piyool waaw ah, ma Malika jaadu piyool ah, Mame Malika Thiatou Piyol bi Mame Malika Thiatou Piyol ña ngay xeex xeex sew jeex na loxo ba si na loxo ba si na loxo na songoon nañu Mame Malika Thiatou loxo ba si na loxo ba si na loxo ba si meeku na arbitre loxo ba Thiatou Piyol loxo ba Mame Malika Thiatou Piyol xeexeram ba sampu oom ñoom ñaar Abdou Siflé waat na Mame Malika Thiatou Puyol anda men loxo ba wala aj na garde ba moom Thiatou Puyol a Mame Malika Thiatou Puyol dem na jawet saaku ya encore mébaat na moom Caatu Puyol mel dafa bëgg a Caatu Puyol ak Ama Malika Caatu Puyol Ama bu Malika Caatu Puyol Caatu Puyol Ama bu Malika Thiatou Piyol Ama Malika door na léegi daal di génnaat door buntu la pour dugg jàpp duñ ne ku door ku daan la wax Thiatou Piyol dafa mel ni dafa dem daa bëgg dem moom Thiatou Piyol waaye Ama da ko di ko xaar Thiatou Piyol Ama Malika ba léegi Thiatou Piyol dugaat na jëlaat na ko jël baaxul jël tànk ya bi jënd ba caxabal na ko Thiatou Piyol daan nañ la. Thiatou Puyol daan nañ la Ama ka daana loxo ba loxo ba loxo ana sapeur loxo ba loxo ba loxo ba dafa simeeku Ama Baldé ka Fallou Luc Nicolaï xalif général kulu promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu suwaat nañ ci digg géew bi Kaapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye Kaapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu wurewa dem na këng waxum dem na ndañ taali bàgg war na mbaam du waay doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf Serigne Fallou Luc Nicolaï jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku soufflé ba dal na Ama ak Modou ñoom ñaar ñu ngi lew too ñu ngi lew too laa ilaha illallah ay waay xool leen stade bi Modou Lo Ama Baldé ñu ñu ngi xeex ñu ngi xeex xeex bi métti ñoom ñaar ñu ngi xeex